ini ñaan ka léegi njaago naam kon pare nga nii bay waaj a passé waaw pare la day gaaw sax ah, xaar ma présenté la soxna si comme ko fekkul fi woon soxna Xadi soxna Xadi lan la nga may wax toogal li laa la doon wax démb mu ngi nii

kii borom baax la boroom jàmm la borom salaam la. ñaanal ah? ñaan ñaanu poussière baax na loolu la ma lay mooy yëre yaa ngi nii fóot na lépp teg. affaire kooku ah? te en plus maa boo tey xam lu gën a neex loolu ba gën a neex mooy dinaa la toppatoo suukaru koor jox la ko nga yóbbu ko <laughs> say say say maa waxati loolu yooyu. jaar aw buur gërëm ah lu la neex rek neex na ma ah. maa ngi si bi dégg ah demal nii la da ngay neex dëgg man damaa nama sa réeg yi ah macha allah macha maa ko tëgg sax man mii di tëdd ak yow. koot bi la wala ay. koot ba ci la. koot ba ci la. xam nga koot bi la. bu eh bu gëstu. kii ba ñaar ma ñàkk am na kenn ku mu gis fii kooku lan la. waaw waaw wuy ma am xoolal da eh, dem si boutique bi nga jëndal ma eh, eh, ma soo wooree da ngay maanu nag fekkee mënoo maanu nga bàyyi koor gi. léegi ma la yoon nga si teg ba. ça va. tout est benn. ça va ça va ça va. lépp tawfeex. ah oui waaw c'est Baye Fall quoi. Baye Fall. oui. ok. je suis le de de chef de maison. ça va. ça va bien. tu es non moi je suis ici dans la famille. ah bon. ah oui. je ne te vois Evet şeyde pahlava, şeyde pahlava. Sérieux. Mais attends, mais tu es belle, hein? Voilà. Oui. Hey, merci. Mais depuis quand tu habites ici? Moi, ça fait maintenant deux mois, trois mois. Hey! Mais tu payes combien? Ici, c'est 45 000. Hein? Ça fait 45 000. Oh, attends, où moi? Je vais gérer ça. Ah bon Oui, désormais, c'est moi qui paye. Tu vas gérer ça Non, c'est moi qui paye. Hey, bye bye. Bye bye. Usahara mom, gidara mom de. Ngeen ci magal. Waaw kon maa ngi yëg ci kaw. C'est mon ami. C'est mon ami. Le petit là Oui, c'est mon ami, c'est mon neveu. Mmh. Oui. Ok. Mais on, on, va essayer de rentrer ici. Hein? À l'intérieur Oui, je vais essayer a Ah bon Ah je ne pas. Tu vas payer le loyer eh, Je vais tout gérer. C'est moi qui t'ai dit ça. T'es Non, sérieux. Vous les vous, vous aimez dire des... Non, non, non, attends, attends, ne, ne, ne, ne dis pas ça. Ne je vais gérer, je vais gérer. Hein? Entendu. Oui, ok, on va discuter quoi. Tchou.